moom ni mu defoon bis aw jiwoom daa fàgg woon moom aw jiwoom ba ñépp ñépp foog ne moom day daa di mu fab jiwoom jox nit mu def ko ab dundam dane ko xaalis nekku fi ok mbokk yi kon ba léegi rek ñoo ngi fii ci euh, asalam Dalifort fii ci kër euh, Baye Talla Gaye ci ngan gi nga xam ne moom la ko Serigne Moustapha Sy Abdou Khadir di gane si ñu toog ak euh, Baye Moustapha Seck fas yéene koo laaj rek Baye Moustapha nga ñëw fii ci kër Baye Talla dund nag moom bis bi nan nga jàngatee bis bi ak nan nga gisee nga sëñ Moustapha gi bis bi de ni ma ko gisee mooy sëñ amatu Mokhtar Diop la ma daan wax daa feeñat ci bis bi sëñ Amadou Mokhtar Diop daan wax ni yeesati na peq te saabu bu noppee yees yiis taxawaayu si Abdou Khadre nag ak dundul si Abdou Khadre nag ci lislaam bisub tey bii Cheikh Mamadou Moustapha doomam ju baax ji yeesalaat na ko ba mu yees peet bi muy ñëw tisbaar di bëgg a jot àddina sépp taxaw góor ak jigéen mag a ndaw ñëpp di ko yàkkali ko di ko teeru mu ñëw nuyoo ñëpp xam ne jox na doomu aadama yëpp ku ne xam ne jox na la sab cër cëg yëg waaye moom nag mu yàkkawli ko yàlla daal di ñëw ñu defa del sàppe ñu defa sàppe mu kàbbar dox boroomam li mu moom moom moom lépp waaye loolu nag mu cërlu ko ci ci ci ci ci ci kàbbar bi mu kàbbar muy waxtoo tisbaar ñëpp topp ci ginnaaw loolu di dono lu way donnul dëgërut ma fàttali ma yàgg na ay quatre vingt quatre yàgg na daal jàppatuma ko nag Cheikh Abdou Khadir Mbacke mu baax ma ñëw njaañum njaga dafa daan gane si at mu nekk waaye ba ñu rek nii Cheikh Moustapha def ni allahu akbar daal di loolu sëñ Abdou Khadir dafa dambe yaar yoo xam ne yombut mennum sëriñ fëllu moo ko fi dambe wan ana lu ko ko may mbàkki ak mbusoobe ndax lislaam ñaari garaat yi ci gën a mag mooy garaatub imaam ak garaatub jëwriñ da ngay doon imaam kee doon jëwriñ mbaa kee doon jëwriñ nga doon imaam loolu rek mën am ndax bi lislaam tënkoo saa borom tëral ko maam Ibrahima xalilullahi la def muy muy jëwriñu lislaam moom la jël lislaam teg ci loxoom moom la kon isxaloo rabbo aslim moo wax ne xaala aslamtu li rabbil alamina maam Ibrahima moomee tamit moo yëkkati kaaba ga wa is yarfaw ibrahimul xawaa'ida minal bayti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samiul alimun ba mu yëkkati kaaba ga yëkkati wu ko ay rakk yëkkati wu ko am njàng da koy yëkkati am tabax jël ab turel gaase doom ji jàppal ko jàppale ko mu ismaila ba kaaba ga taxaw kooku bu moo moo doon moo doon jëwriñu liggéey ba loolu loolu xitma la maam Ibrahima di jëwriñ ji waaye ba liggéey ba yeggee nag Kaaba ga daa daal di am nag imaam kan mooy imaam bi muy Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy imaamu Kaaba ga lee di sariatu mutaara bi di Makkatul Munawwara bi sëñ Fallu ñi ñëwee itam mooy moo doon imaam bi moo doon jëwriñu Sëriñ Tuubaa di imaamu jumaa ji loolu ba mu amee ci Abdou Khadre nag ñaar yooyu la dambewaat moom itam doon doon imaam bi doon jëwriñ bi te njabootu suñ Tuubaa gépp yéene ko ko ndax bi suñ Fallu demee rek sëñ Abdou daa doon jëwriñi borom Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye jël imaam gi bàyyi si Abdou Khadim Mbacke si Abdou Khadim bi mu demee ba war a jot ci cërub jëwriñ ji daa daa téy imaam ga moo imaam ñu jël jëwriñ gépp teg ko ci loxoom muy jëwriñ yoonu murit di imaamu yoonu murit loolu nag doy na ndimmal lu ne defal nañ ko taxawal leen islaam si gën be lislaam ba nga ba nga xamante ni ab kuréel dajoo dajaloo woon nañu ñun si Abdou Khadir Mbacke dañu dañuy dañuy defaraat lislaam loolu ak Touba fekk sëñ Abdou Khadir da leen ni da leen dem leen fa lislaam yàqoo fii lislaam yàqoo fi kon doomam yii fi ne ba ci Cheikh Mamadou mii gis bi mu ñëwee ba léegi la wajuram wa sampan di ko dundal muy muy muy chariatu islamiya bu wér waaye bu ngeen gisee ci biir nuyoo bi ak am aw nekkanam ak bindeef yi ngeen xam ni mu indiwaay na xaqiqatu mën a bu wér kon le maamam noon maa ko moom mi ngi ci loxo boo xoolee si Mamadou Moustapha mii da nga xam ne ci loxoom maamam lu mu waxan maddaliya chariatul mutahara man xaadali aqiqatul munawara kon Mbàkke ñu ngi lay teeru te sàkku ci yow ndimbalu ndimbalu ñaari ngir yooyu muy sariatu àqiqatu di sàkku ci yow leeru ñaari ngir yooyu muy àqiqatu ak sariatu ndax lépp ngi ci sa loxo indaale nga sariatu bu ñëpp rafetlu waaye indaale nga àqiqatu nag bu ñëpp rafetlu. sëñ Moustapha mii nag daanu sawar wax ci moom ndax day sagal taalibeem ndax fu taalibeem nekk rek sawar na faa teg tànkam seeti la. ba waa koñ ba naw la fonk la dolli ci lan la téye woon ndax nag lu nu jafe lu nu jomb moom la nu may mooy fekk si nu ci suñu biir biiri nawle sagal nu teral nu te saa yu fi ñëwee nag ba dem ñun de wax nu suñu jëmm ji rek waa waa koñ ba yëpp a yokk ndax ñoo ko waxal seen bopp ndax fu nu dëkk rek fekk nañu fa kon Mbàkke Bàll la ñun amuñu fayam di ñaan rek yàlla aaral nu ko sàmmal nu ko ba liggéeyu maamam bi fu ko sumbee rek bu geestoo gis nu ba mu am ca ndam waaw loolu de leen koy ñaanal mbàkke bi du fan ànd ndax jikko yi ca baayam ci way juram yëpp mi ngi ci moom waaw mi ngi ci moom daal sant rek la ñuy def ak mbëkk xam naa duñ jeexal te laaj ñu la ci jàmbaaram ji muy baytaala ah baytaala de àddinaam léppam moom la mooy moom bañ na ko sax naan maay bay faalu sëñ Moustapha te def ko jëfe nag ñun ñii nekk ak moom di soxlaam xam nañ ci dara ndax moom la jiital leneen doog a ñëw a ah, liggéey boobu nag ñu sawar ci ànd ceeg moom jàppale ko ci comprendre ko ndax moom léppam sëriñ Touba la bu xëyee fi ba xéewlu ba pare liggéey sëñ Touba bi rek lay dëgmal ba euh, fatu jot waaw ñu xam nag ni muy dëgg ci moom waaw dëgg ci moom lépp lu mu am yéene na ko waa kër Sëñ waaw ñuy ñaan nag yàlla guddal fanam ñu nit liggéey bi mu sumb te muy dëgg ci moom mu bëgg ko ci xolam ñu jàppale ko ci ba mu am ci ndam waaw loolu daal lañ koy ñaanal benn. Cheikh Moustapha nii la doxee du jëf lu ñaaw du ko waxee lu masa am da koo joxe deuxième la woon ci turandoom sëñ bee ci feeñal coobareem ni ci Moustapha al moo tax mu xër ci jile daam def ci lu kenn mënul ci daam ab lii xadiimal mustawa wa ibni seex mustawa aw yi wudul jeex fii du fee def ko itam ci ngir ngeen mën a topp suñu programme yu am solo yooy daw leen abonné ci seen bi te bañ a ak activer cloche bi pour benn programme bañ leen a mën a ram Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall